buñ ko ci défé ñun nak comme ñun amuñu alal waye am nañ touti jot am nañ wér ñu taal suñu auto dugg ci dëkk yoy jëm leen a ko indil leen bokk mi li Saïd ben association la nek momit buñ wax humanity la waye tour yoy yëpp amul jëriñ li am jëriñ moy def lu baax te sellal ko ndax yàlla mën ko nangu li ñi def nak ndawut ndax yàlla subhanahu wa taala am na mu tag ci alquran ba ag ak ñom naan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum amna ño xamanteni bàyyi nañu xel ñi nga xamni ño ñak te mënu mënuñoo dem sax di laaji li ci la borom bi subhanahu wa taala waxaat na ni wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yatiya ahadakumul mawt fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum min as-salihin na ngeen jël ci seen alal yi ngeen dépenser ko bi maana ngeen dimbali ñi nga xamanteni amuñu lu jitu ab bis di ñew bo xamanteni nit ki day ngéejoo woon naan yalla bàyyi ma fi ab diir sama fi baye dina jël ci sama alal masara yalla ne wala yu axira allahu nafsan iza jaa ajaluha yalla dula may alal nga baña dimbali nit ñi ba de dikkal la nga naan may ma ab diir ma soga sara fa yalla du nang lool kon bi nga mané am ci ngay dimbali ñi nga xamanteni amuñu papa dafa génn àdduna ah. Ah. donc petit euh, gamin là vous voyez il a perdu son père il y a une semaine Et Allah SWT l'a gratifié de ça. Et pour moi, lui et sa famille, sa mère est à la maison, Aminata Magagrakulam. Akéomeka. 20 euros, c'est rien du tout, mais pour eux, c'est grand-chose. Donc, euh, marhaban bikum, la cagnotte est encore là, mettez-y là et que ce soit sincère pour qu'Allah nous récompense nous tous. C'est bu ci de du ma gis. Euh, jox nañ ma saaku ceeb euh, ñaari litre dawlin ñaari paquetu suukar ak paquetu meew. ñaata ngeen ci njaboot bi. ñun ñett nag sama sama sama soxna ak sama doom. mën na ma yor weer. dama fa nekk man ak samay frère waaye lu mu gàtt gàtt gàtt ma naa ci dund lu war a mat ñaar fukki ñu du bon bon dana durer 15 jours. dana mën a yóbbu de ba fukki fan. ñi nga xamante ne ñoo joxe xéwal ñu ñaan yàlla yàlla suñu borom yokkul leen yokkal leen aduna alaaxira. yàlla may leen barke ngeen am li ngeen bugg ci àjjana. ñaan nag sama borom yokk seen sutura yokk seen xéwal yokk seen ba lu ngeen man ren ngeen mën ko déwén. ñun julit di fande ni yëpp. ñoo ngi ñaan ci borom bu tabaraka rek taala ki nga xam ne kii lépp mu ngi ci moom. donc euh, c'est ça l'importance aussi des visites sur le terrain nous on est là pour vous aussi si les donateurs et les associations peuvent venir sur le terrain c'est que bénéfique pour nous. Euh, alhamdulillah, Saïd est venu, il a distribué 150 kits à Fongelemi vers la frontière guinéenne. Tellement qu'il était content, il a vu que le projet était très pertinent, qu'il a anticiper sur une deuxième étape ici à Fanden, dans le village de Kerbaï Salou.